asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu sifri ci Equivox TV maa ah bu baax a baax te di ko yéen tey nag comme ni ngeen ko xamee ñu ngi ci alxames ah jeudi 4 novembre 2021 dama leen di bàyyi ngeen dem déglu te seetaan yëglikaay li ñu andi ñu dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 4 novembre 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay sunu lamb la ñuy xëy doore ko. yëglekaay bi tey xetam mu njëkk moom ca kam ca xëy fesal moo di tafaatin borom taq ci rib daal moom la lanu xëy tey wan mu gàddu am ndëndam mel ni ku koy samp ci géew ba mu mel ni ki nag yëglekaay bi dafa xëy tey ñëw ci moom ma maanaam daal dina xamal ne daal adversaire Boy Niang bii day ah est-ce que du adversaire boo xam ne bu diis la ci Boy Niang yëglikaay bi nag moo xëy tey andi boobu jàngat ndax jàpp na ne daal tafaatin nekkul koo xam ne daal adversaire bu ndaw la maanaam Gros Morceau daal la ko bi tey tey tudde boo xoolee ca bagaar ba maanaam taxawaay ba ak puissance ba ak yu mel ni ki noonu du samay wax nag sunu làmb moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ko kon daal mu mel ni ki maanaam le 19 décembre moom nar naa maanaam neex lool yëglikaay ba tamit xëy na nu xamal ne daal booy ñang moom a nga xam ne moom mal tafaatin war a jàmmaarloo nag booy ñang moom ginnaaw ay weer yoo xam ne def na ko ci réewum tubaab ya di France maanaam ñibbisi na démb ca 15 fa nga xam ne daal mooy

wala boog fa nga xam ne ni daal moom moo di aéroport Blaise Diagne daal fa moom booy Niang ñibbisi na mu mel ni ki leneen loo xam ne ni yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci muy combat boo xam ne moom ñaari mbëri ñëw na ba pare ñu war koo jongante muy dimanche ji nu jëm Quench double moteur yëglikaay bi xëy na xamal ne daal wala boog am na ku xëy di ca wax muy may ndewaan di may njing di entraîneur tafaatin moom ñu doon tudd léegi moom nag la mu gis nee na bu dee wàllum favori moom ki nga xam ne moo di Quench moom mooy favori nag dana favori ga moom taxu koo bëri légèrement daal la ko amee yëglikaay bi moo xëy tey dalal ko seq ak moom waxtaan beneen technicien boo xam ne laaj nga laaj lañ ko ci ab combat mooy ka nga xam ne nii moom moo di Zaliou Ba ma nga xam ne nag ku ne xam na ko ci wàllum entraîneur mu yor écrit zap zal daal xëy na tey di wax ci diggante ka nga xam ne nii moom moo di xàddaafi bu joof yor ak ka nga xam ne moom moo di rhinocéros moom daal daa jàpp ne ñoom ñaar seenum comba jaaru na te itam nag combat la boo xam ne daal bu équilibré la loolu daal moom mooy ay waxe ka nga xam ne nii moom moo di ba ci boobu combat ba tey bu nu continuer ca la nga xam ne nii moom moo di làmb ji tournoi CEDEAO ba nag moom ku ne xam ne ne tey jii nag lay commencé yëglekaay ba nag xëy ne nu tey wan sunuy ay gay sunu ay gaynde ak seen entraîneur yëglikaay ba ne daal maanaam Sénégal fi mu nekk nii daal la mu bëgg ca compétition ba daal maanaam conserver la nga xam ne nii moom moo di ab tiitaram yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu ko wax poul nag kanu ko bokkal wala ñenu ko bokkal bokk na ci réewum Gambia Côte d'Ivoire ak Sénégal daal ñoo bokk pool yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni noonu ba tey mu mel ni ki nag ci wàllum chef CEDEAO boobu daal yëglikaay bi xëy na tey seq ak ka nga xam ne moom moo di Aliou Ndour waxtaan Aliou nag moom mooy vice président wu chargé de communication waa Amalda moom daal nee na maanaam gars yi nanu mobiliser en masse maanaam dajaloo bu baax a baax dem soutenir la nga xam ne moo di équipe ba ngir mu mën a la nga xam ne nii moom moo di CEDEAO ba loolu yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu mel ni ki lamb sëriñ yaaw jo nga xam ne moom fii lay amee am na lamb joo xam ne soriwu ko muy lambi dóor ji ba tey yëglikaay bi xëy na ñu xam na daal jamaïcain bu bëggee dégg dëgg daal taxawal na nag ab combat boo xam ne ay xale la mu war war a dox ci diggante Batista numéro ka nga xam ni moom moo di Ibra Gaabu yëglikaay ba ne na daal jamaïcain taxawal na boobu combat combat ba nag le 25 décembre la war a am ci diggante xoyantaat ak Baye Mandione ca la ñuy bëre boobu lépp combat leneen loo xam ne tamit taxaw na te ka ko taxawal moom moo di Assane Ndiaye moom moo di ki nga xam ne moo di xeeru ngor numéro 2 ak koña numéro de yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu lambi simple ja moom jax mu mel ni ki nag nar naa del siwaat le 14 novembre ak mise boo xam ne bu rëy lay doon fa nga xam ne moo di ca stadium Iba Mar Diop yëglikaay bi xëy na xam ne daal maanaam jax juróomi million la fa fas yéene andiwaat tegal ko fa ña xam ne ñoom ñoo di mbëri simple ya mu mel ni ki buñ fa jógee record la ñuy dem record nag buñ fa demee moom kan fay fekk moo di caatu yarax caatu yarax moom daa xëy tey di weddi ci ay wax yoo xam ne ñu ngi ko doon wax ci digganteem ak Ada Fass na seen combat Fallou Ndiaye da koo taxawal mu mel ni ki nag depuis àll mardi ba tey wax jooja mu ngay jib waaye caatu yarax moom weddi na ne na loola daal amul tey suba waxi noppi waaye tamit ne na pare naa de ngir Ada Fass buñ ko joxee tamit damay lekk avance am bëre ak moom loolu mooy ay waxam ba tey bu nu continuer ci mbir moomu nga xam ne ni moo di wàllum làmb waaye ba tey CEDEAO ba yëglikaay bi nga xam ne moom moo di record tamit ñëw na ci tey daal ak da nga xam ne noonu la poul tëddee dina xam ne daal sunum réew moom bu bëggee dégg dëgg comme na leen ko waxee woon Sénégal Gambie Côte d'Ivoire ñoo bokk poule poule bee ba ña fa nekk moom moo di Niger Sierra Leone ak ña nga xam ne ñoo di waa Ghana beneen poul ba nga xam ne mooy poul C ba moom ña fa nekk jàppal ñeenti équipe la ñu Nigéria la Burkina Faso Guinée Bissau ak beneen mu mel ni ki daal bu bëggee dégg dëgg record na kon mbir yëpp nii la demee ba fa géey moom ma nga xam ne coach adjoint la ñu toftal ko ci Ambroise Sarr mayor équipe wu Sénégal ba moom ba fa daal xëy na tamit wax ne na daal Sénégal Niger ak Nigeria ñoom ñooy favori yi waaye tamit nanu bàyyi xel bu baax a baax Burkina Faso ak ku nu mën a bàyyi xel daal ñun moom la ñuy ñaan mooy sunu équipe yal na gañe la nga xam ne nii daal moom moo di compétition bi nga xam ne nii moom moo di drapeau CEDEAO bi nga xam ne tàmm nañu koo gañe jërë ngeen jëf yëglikaay yi dégg ngeen tey loolu lañ ñu indil ah sunu làmb muy record waaw fa nga xam ne ni nag euh, defe naa ne fa la ko tëja tey moom mooy wàllum CEDEAO bi nga xam ne war na commencé tey waral tey ji sax lay commencé ci arami ci arène nationale ñu ñaan suñu équipe équipe bi nga xam ne nii suñu ay gaynde ñoo fa ne yàlla nañu gañe ndam li yaa ngi dégg di nuyu seen ent seen ay entraîneur suñu papa Ambroise Sarr ak ak le coach adjoint Bafa Gueye bu Fatick ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yore équipe bi nga xam ne tey vraiment am nañ ci ñoom yaakaar parce que fu nga xam ne nii ah euh, Moussa Faye nga fa Ngor Niakha nga fa ah, moom Mamadou Faye ordinateur nga fa booy Faye nga fa ah vraiment ah dinañ am yaakaar parce que ñooñu ci wàllum lutte simple moom wane nañ ci seen bopp te c'est des techniciens parce que tamit du maanaam regroupement bi yàggoon na ñuy tànn di tànn ba mu des fa ñoom juróom comme ça veut dire que staff technique bi juumuñu ci côté bi nga xam ne ni moom lañ tànnee kon la yàlla na yàlla def daal ndam li comme niñ ko tàmmee gañee rek parce que CEDEAO mu Sénégal yàgg na koo gagné fii ci réewam dem fa feneen ca beneen réew tamit gagné ko moo xam fu ñu ko organisé moo xam Burkina Faso la moo xam Niger la wala Nigeria wala feneen yaa ngi dégg loolu yàgg na am waaye bu ñu ñëwee nag ci li nga xam ne ni nag moom mooy lambi réew nga xam ne nag moom mooy bëre bi nga xam ne bokkuñu ko kenn muy bëree dóor bi ah daa mel ni ki nag tey gis ngeen ci xëtu njëkk yëglikaay bi di sunu làmb tey ku ngeen seen moom mooy borom taq ci tafaatin akum ndëndëm yaa ngi dégg mu nga gàddu am ndëndëm jëm ci géew ba loolu la waykat bi naan waaw <laughs> waaw comme ni ko waykat bi di waxee daal mbëri ca géew ba waaw gàddu na ndënd ma moom jëm ci géew ba mu mel ni ki nag yëglikaay bi dafa xëy tey ñëw di jàngat ci digganteem ak Boy Niang kani daa jàpp ne dafa adversaire bi nga xam ne moom la Boy Niang am adversaire bu costaud maanaam macha allah ci côté bagaar ci côté puissance ak yeneen yoo xam ne nii boole na ko ak taxawaayam maanaam yooyu yëpp yëglikaay bi moo tax mu xalaat ne Boy Niang ah adversaire bi mu am daal maanaam morso nekkul morso bu ndaw mais morso bu mag a mag a mag la Boy Niang am loolu nag. mooy làmb parce que làmb moom saa bu ci jógee di ci dem rek jàppal ne ñaari adversaires yi du ñu tolloo ci li nga xam ne nii des fois même taille même kii yombul des fois ñu xaw lu ñu ëppante moo xam des fois nga gis xaw a sut ki gën a gàtt wala ki ëpp pois wala ñu ne kii moo dàq xeex kii lañ ñu xaale moo dàq bëri mais nag loolu nekkul ne moo jeexal làmb ja làmb leneen la parce que ab géew la te benn combat ngeen di bëri yaa ngi dégg kon defe naa ne daal li am sol nag mooy tafaatin yooyu ñu ko wax ne yëpp mu ngi ci moom am na waaye tamit ki ko jël muy Boy Niang moom li nekk ci boppam mooy gagné Tapha Tine loolu na ci nit ñi bàyyi xel te Boy ñan tey ku bëre ak Lac de Guiers numéro 2 ah, daan guy gi daan Garga Mbossé daan Sa Thiès bëre ak Lac de defe naa tey te Lac de daan na Tapha Tine te Lac de Guiers daanul Boy Niang ci giw ba ba mu daanu jaaxaan maanaam exemple ba ba ñu jëlee ko ci kaw déedéet maanaam la fa xew mooy euh, dañoo bëre ci biir bëre action am ñu jàpp ne booy Niang daanu na mais arbitre bi jàpp ne jëlaamu fa ba joxe match nul mais ba booy Niang ba ba Lac de Guiers dugalee recours am dañ ko jox ndamam ça veut que loolu moo lay wan ne kon ah euh, Boy Niang nekkul mbër mu ndaw waaw kon na tafaati nit xam ne ak ñi ko wër xam ne Boy Niang du mbër mu ndaw te adversaire taay la moom Boy Niang moomu nag ba tey yëglikaay bi xamal nañu ne daal ñibbisi na jóge na fa nga xam ne fa la nekkoon muy France ginnaaw ay weer yu mu fa defoon doon préparé wu ñëw na nag Sénégal comme combat presque mën nga ne un mois moo ci des ndax le 19 décembre la ñu war a bëre te tey ñu ngi ci 4 novembre waaw un mois ak ay fan rek a ci des kon day ñëw nag ci réew mi ah pour mën a nag. def ay contact ak ay ak yu mel ni ki noonu waaw kon loolu mooy li nga xam ne nii moom la ñu yëg likaay bi xëy tey wan ci xëtamu njëkk ci loolu beneen combat boo xam ne moom itam combat bu nar a a am arène nationale dimanche incha allahu rabbi la set yàlla nañ ko fekkate tal ko ko ngeen gis noonu Quench ak ki nga xam ne moom mooy Mbaye Gningue Mbaye Gningue nag moom mooy l'entraîneur de Tapha Tine moom nag moo xëy di jàngat ci combat ki nga xam ne moom mooy Quench ak Double Moteur li mu gis mooy daa jàpp ne ñoom ñaar boo bëggee dëgg-dëgg Mbaye Gningue ne na maanaam favori am na ci ah waaye nag nee na te ki mu jàppe na moom mooy favori légèrement bi lu kenn ku dul Coens waaw loolu la gis effectivement loolu moo am Coens moom mooy favori légèrement ci kanamu ki nga xam ne nii moom moo di double moteur wala sax man boog bu ma doon wax favori du ma ne légèrement favori am la parce que moo ko jiitu ci làmba ah. yaa ngi dégg bëri na ay combat yoo xam ne nii xëy na double moteur kiiwagu ko mais nag loolu tekkiwul na tey da ko war a gagné parce que nag ci combat lañ favori moom ay kayit la waaye bu nag ca làmb ja moom leneen mooy am yaa ngi dégg kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax dimanche la war a am ñuy nuyu càmm production bi yépp buñ beneen combat boo xam tamit war a na ko bëree ah mu war a ci diggante Doudou Sané ak ki nga xam ne nii moom moo di Rhinocéros ñoom ñaar nag ñëw nañ fi démb ñëw fi tey euh, boobu combat ah day nekk combat boo xam ne nii combat bu nar a neex la Serigne Modou Niang moo ko tëgg waaw sëñ Modou ñaam mu ñaam production ñu koy nuyu di ko ziar waaw moom nga xam ne ndeysaan day liggéey rek te du wax moom moo tëgg boobu combat ñaari mbër yoo xam ne ay poids lourd lañu tamit xëy na jàngat boobu combat ngeen gis combat bi noonu muy Rena Sores ñoom ñaar boo bëggee dëgg-dëgg ah saal ba moom la mu gis mooy ne combat bu équilibré la waaw war na a nekk waaye xëy na nag sénégalais yi wala ñuy amateuru lamb yi Doudou Sané gën a xam ci lamb parce que li tax mooy moom dañ ko gis muy bëri li simple lu bari ba ren defe naa bi soo bi tëj moom la ñu jël ne moom mooy meilleur lutteur ci wàllum simple bi ndax mu ëpp ay trophée yu mu kon defe naa mook rhinocéros nag combat la boo xam ne bu nar a metti lay doon buñ ci jógee ñëw ci comme ni ngeen ko xame ah euh, wàllum euh, euh, ki nga xam ne ni moom moo di jamaïcain ci tuusi moom itam taxawal na combat boo xam ne combat ay xale la le 25 décembre lañ ko révéré ci diggante ko ma njoon muy diggante Batista numéro 2 bu Pikine ak ki nga xam mooy Ibra Gaabu bu Parcelles Assainies Jamaïque fësal na boobu combat Jamaïque itam kon journée boobu mu ngi koy defar macha allah ndax combat bi euh, Batista bi ku jar xel la Ibra Gaabu kazalika naka noonu leneen loo xam ne tamit ba tey beneen promoteur bu taxal ay xale muy diggante Koña numéro 2 ak ki nga xam ne moom mooy Xeeru Ngor Assane Ndiaye fa jaar ñoom ñaar ñooñu tamit mel ni ku ci ne fi nga jóge neexul ci làmb maanaam que li ko waral mooy ba nga fay jógee jóge woo fa ak ndam kon defe naa ne bu ñu leen joxaatee sens ah combat bu metti lay doon ci ñoom ñaar ndax ku daanu dina metti ci yow waaw waaye nag faw kenn daanu moom faw jël la am jax xam ngeen ko ci lit simple bi ñëwati na ëndeeti na 5 millions pour le 14 novembre loolu la jax def Mamadou Diakhaté alias jax mu koy nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax waaw muy indi lu ama am solo comme ni ngeen ko xamee nag kon na gars yi waaj la 14 novembre ak Dax moom moo ngom la si tëgg bi way ba mbay ak luum waaw Dax moom macha allah daal mu ngi doxal lu am am solo leneen loo xam ne wala beneen yëglekaay boo xam ne dañ fay dem muy record record moom bu ñu fa demee kañ fa fekk moom mooy caatu yaraax caatu yaraax le vainqueur de Sal la fois passée yàggul woon mu ko daanee ñëw na fi toog fi plateau ma invité ko moom caatu yarax tey nag xëy na tey di indi ay leeral wala sax di weddi parce que gis ngeen ko noonu mu ngi noonu tent bopp bi weddi ya muy weddi nag ne combat am ak Ada wax ne dafa taxaw fa lu ñu rek taxawal moom ne na loolu amagul taxawoogul boobu combat waaw moom daal weddi na ko waaye nag ne na bañu ko buñ ko ko mu jël effectivement defe naa ne yéen ñëpp ay génération ngeen ay xale ngeen ku ci ngi dem faw ngeen di bëri seen biir comme li tafam rek Ada Fass def kera ah Quench ak double moteur war ko def dimanche ji nu jëm yow itam defe naa ne tey buñ la joxee Ada adversaire bu baax la Ada Fass fi mu nekk nii xale la boo xam ne macha allah tamit mu ngi ci yoon di dem am na popularité te itam xale la boo xam ne tey ci làmb taxawaay bi ñu ko gisee macha allah am na solo trop kon loolu lu am la CEDEAO bi nag fa la ñuy tëjee mu mel ni kii record ñëw na ci par rapport ak la nga xam ne ni moom mooy poule yi poule yi boo xoolee ni mu composé wu pulu Sénégal mooy poule A bi Sénégal moo fa nekk Gambie ak Côte d'Ivoire poule B bi ba tey Niger a fa nekk hmm, Sierra Leone ak Ghana. poule C bi moom moo am ñeenti équipe maanaam euh, Nigéria fa ne Burkina Faso ak Guinée Bissau ak Bénin ñoom ñoo ne ci poule C bi kon équipe maanaam euh, CEDEAO bi noonu la composé woo ba fa géey nag moo tax mu ngi wax daal ne na nañu Sénégal moom mooy favori bi moog Niger ak Nigeria waaye nañu bàyyi xel Burkina effectivement parce que des fois équipe bañ a doon favori ñëw ci compétition maanaam génn ci kaw Euh, favori yi jaar seen kaw jàll loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax waaye ñun moom ak lu mën a xew rek comme ni ñu ko waxee woon rek lañ koy waxaate sunu équipe daal ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ndam lu leer nañ te am nañ ci yàqin ndax comme ni ma leen ko waxee fu nga xam ne nii ñoom Boy Faye fa ak ñoom Ngor Ñaax ak ñoom Moussa Faye ak consort ñoom ordinateur ah foofu moom ak ñoom Ansu Ndour alias Ganja Fa Ganja Fama ah ñooñu macha allah kon loolu mooy tey li fi dikkoon leen wax ne tamit. seetaan ngeen def defe naa démb vidéo Gris Bordeaux bi nga xam ne ku xam ne mu ngi doon réclamer pour day nekk candidat pour mairie Médina waaye dernier moment nag Gris Bordeaux renoncé na candidature booba maanaam bàyyi na ko léegi nag nee na day dem soutenir Cheikh Tidiane Ba waaw parce que jàpp na ne Cheikh Ba woon na ko waxtaan nag moom am ne yeneen kilifa yu ko woo waaye nag la ko Cheikh Ba wax. ak projet mu am pour Médina moo ko gën a convaincre ba tax mu dem àndi ak moom loolu nag ku ne am na ci droit parce que tamit ñoom ñëpp ay doomu Médina lañ pour développer seen gox moo leen tax a jóg kon bu fekkente ne gis na koo xam ne tey gis gis na ne moom lam ko wax doy na ko mu dem fekki ko loolu dara newu ci li am solo rek mooy kuy jóg rek na nga jóg ngir sa gox man daal loolu laay wax élection locale yi ñu jëm daal képp koo xam ne yaa ngi xëccu na nga fexe ba yow bu la yàlla dimbalee ba nga gañe na nga taxawal sa ab gox ca seen ay besoin ca say ci la nga xam ne nii moom mooy say pouvoir ya nga yore tamit laajub gox bañ jox la ko balde nga taxaw na la neexee loolu du am xel parce que fal leen ma fal leen ma ba nit ña takku fal la daj ay coono votel la yeewu fajar ñiy gontu ngoon ñi toppu naaj ñu fal la après élection ya passé bu ñu la soxlaa duñ la gis ngay làqutoo ko nëbbutu yooyu nañ ko moytu yaa ngi dégg pouvoir kenn du ko jël def ko ngànnaay maam ab tabax doon na ko wax yal yàlla yokk ay leeram pouvoir kenn du ko xeexee waaye tamit du loo jël di ko ajoo di di di di di kii daal yooyu amul njariñ eh, di ñaan jàmm Sénégal di nuyu caméraman yi nga xam ne nekkoon ci wàllum film bi muy Momadou Mansour maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax borom PA di nuyu Malick Balde Malick ak Mansour ak Babacar noonu la demee woon loolu moom defe naa ne lu yàgg ànd la yàlla na yàlla def jàmm. attention Jackson daanu